Demba Mballo euh, sànq la ñu ko tàggee man ba ba may toog euh, dama dama jàpp ni xibaar bi xëy na wérul woon moo tax euh, tàmbaliwuma ak moom dembam Mballo jiite woon site internet tamit ànd nag fu nekk équipe national Sénégal wax dëgg yàlla ku ko xam équipe national nga ko xameel ñu koy jaale ay mbokkam di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana Charles yow waroon nañ la jaale bi ñuy tàmbali ndax danga am goro bu wàññeeku ñi ngi koy waaw euh, ñi ngi koy ñi ñi ngi koy jaalo njaboot gi yëpp di ko jaalo soxna si ñu dem ci ñaareeli pàcc bi kon na ñaareeli pàcc euh, jàkkaarloo bi Turquie ak Sénégal diggante bi faw ñu waxtaanee ko gannaaw France euh, buuba defe naa ci ñu yàgg naan dañoo jël dëkk bi jébbal ko waa bitim réew États-Unis ci ñu ñu mën lim

Ah, ah, kañ laa ba sam mbaat bi moom xam nga kañ xam ni metti na ko mu ko rombee trois jours après ci couloir ne ma yow pare gu ñu a des contrats ma ne ko du li may wax a ngi nii mais pourquoi man yaa yaa <laughs> ma de ah? dama ak caat bu yaanaa maat ñu doon ko pare recevoir maak Pape Djibril soir d'info mu ma yow jeexagul man ko du li may wax a ngi nii même ci couloir yaa ngi nii xulóog journaliste yi alors euh, gannaaw France ni mu ko doon liimee mun nañ ne Maroc Chine États-Unis gis nañ ni Turquie ñi ngi teg tànk léegi ci réew mi bu baax bu lim bu ñuy liim rek bu mujj bu mujj bi mooy stade bi ñu dégg olympique cent cinquante milliards ñoom lañ ko jox ñoo ko nar a tax euh, tabax AIBD euh, duma lim xëy na ku lim juum ni ñuy wax AIBD ñoom lañ ko dénk ñoo yor gestion bi donc turki de plus en plus ak yeneen a ah, yu ñu fi tabax stade euh, stadium omnisport bu jam ñaajo bi it ñoom la ñi ngi fiy teg tànk moo tax ñu invité euh, ak Erdogan bari fi tànk ñeenteelu yoon a ngi nii moom bi mu faloo ba léegi muy ñëw Sénégal bëgg na fi lool président fédération sénégalais yi nekk Turquie mu ngi nii euh, Pape Matar Sow lay wuyoo ñu am mbégte ànd ak moom ci waxtaan wi waaye it euh, ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur ki leen fi ñëwal tey Babacar Ba lay wuyoo moom it ñu am mbégte dalal ko li ñuy njëkk laaj mooy dégg nañ 1500 na euh, sénégalais yu nekk Turquie. Erdogan bi mu fi mujjee ñëw déggoon ak président Macky Sall may leen këyit. mais loolu ndax doy na ndax ci ñaxtu yi ma jot am na ñu bëri ñoo xam ni ba léegi. ñu ngi continuer kaas këyit ak aussi am passeport. ñu ubbil leen foofu ñu mënee am euh, ñi amul passeport Matar yow laay laaj loolu balaa ñuy euh, xuus. avant tout dañuy wax asalaamaaleykum mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu di ñu bàyyi xel. Euh, rawatina tey ci palaato jàkkaarloo bu am solo bi. Mm. ñi ngi ciy nuyu ñëpp euh, am mbégte it bu rëy euh, ci ñi nga xam ne bokk nañoo ñoom palaatoo doon ko rêvé ah ñoom lii kon mbégte mu rëy la ci ñun ah ñu ciy sant bu baax a baax di nuyu ñiñ fi fekk ñëpp ku mel ni Père Sarl ak grand Bouba grand Papis ak monsieur Fall. ak euh, monsieur Ba mi nga xam ne euh, ci ministère bi la jógee. Euh, Babacar ñu koy nuyu moom it di ko jox wàccuwaayam di la nuyu yow it leer. defe naa ne. non deer la amul problème booba man comme baat bi mooy. lu lu dimbale rek c'est parce que deer la c'est deer. non j'ai c'est D E R. oui deer <laughs> voilà. <laughs> voilà. Euh, mu nekk lu am solo loo xam ne tamit dañuy nuyu àdduna yëpp di nuyu tamit ñi nga xam ne ñi ngi Istanbul wax dëgg yàlla nekk turki boobu ba léegi émission bi tamit jaraloon na leen lu nekk ndax mm-hmm. décalage heure bi gudd na mm-hmm. euh, ñoom ñu ngi ci trois heures presque euh, ñu ne woon dañuy toog aussi tamit pour gis lii mm-hmm. ñu ciy sant yàlla bu baax waaw comme ni nga ko waxee aussi tamit bala may ñëw ci loolu rek dafa am lu ma bëgg nga may ma ko tuuti rek ndax dafa am dafa métti woon ci ñun. Euh, ci ñun génération 2012 lañ. ñu nekkoon fa bi ñuy ñëw Istanbul dafa am ñu ñu fa fekk. ñu ñu doon wax ne bu ngeen ñëwee jël leen seen passeport ngeen dugal ko ci ron matelas yi. wala ngeen jaañ jenc ko wala ngeen sànni ko yéen a xam lu ngeen koy def. Mm-hmm. ndax bu ngeen fi yoree passeport bu leen police jàppee dañ leen di yóbbuwaat Sénégal. wala bu ngeen génnee du ngeen di mën a wax ne noonu ngeen tudd na ngeen wax ne ay somalien lañ. sa ah. a été très très très difficile. 2015 hmm. président Macky Sall ñëw fa. Hmm. ñu koy nuyu au passage ah di ko sant bu baax. Hmm. parce que métti woon na mu jàpp ci. bi mu fa ñëwee pour gàttal rek ci li nga xam ne moom lañ ko wax mooy. su laajee jënd jëndal ñu. su laajee ñaan ñaanal ñu. su laajee leb lebal ñu ñun liñ soxla mooy. permis de séjour. boo xam ne dinañ ci mën a liggéey dinañ ci mën a lijjanti suñ bopp ci dëkk bi. Mhm. parce que tamit période boobu métti woon na boo ko amul munoo am accès ci hôpital yi munoo am accès fenn. Mhm. bi mu ñuy tontu mun nañu su laajee jënd dinaa jënd su laajee leb dinaa leen ko lebal su laajee ñaan dinaa leen ko ñaanal xamuñ bu mu def mais am nañ. Mhm. kon kooku dañ ko war a sant avant tout balaa. dara xew yi. ci laa ci laa jëm si. fi mu fi mu egg si ba am si rek comme dafa guddi Istanbul. dina ñëw waa dina ñëw <laughs> dina ñëw. xam nga mbir boo ko dëxëñee ci dara rek. te ñi mu war a leer leerul ci seen bopp mën na indi après ay euh, détails waat. Mm. bi loolu amee commission mixte ñaari dëkk yi am. Mm. su amee ñaari état yi bu ñu waxtaanee ba pare dañuy laajaat lenn lañ ci mën a dolli. bi mu amee ambassadeur mu ngi fi woon. ñu sulu ñëwaat loolu ci kanamu Souleymane Soylu ñëwoon na fi ministre de l'intérieur bu Turquie bi mu amee ñu wax ko moom mu ne pare na pour may sénégalais yi tamit këyit su delluwaatee Turc comme ni ko président waxee woon ne président Erdogan accordé na ko seen problème nag mooy fan lañ ñu doon dugal parce que ci législation ne ku fa ñëw te amoo visa waruñ la may kayit boo fa toogee ba sa visa jeex doo am kayit kon ñun dans les normes dañoo waroon a génnaat dëkk ba am visa bu bees ñëw ñu doog ñoo may séjour léegi ñoom ñu fexe ba lijjanti ko ñu ne léegi kon dinañ régulariser sénégalais yi fa nekk ñu recenser ko niñ koy recenser mooy système bi carte consulaire bi ambassade amoon. ñu ne nañ recensé waat xoolaat ñaata sénégalais ñoo fa des ñoo fa nekk ñu amul kayit bi ñu ko boolee mu toll ci 1444 sénégalais 1444 sénégalais yooyu moom lañ jox turki yi. Mm-hmm. ñu dugal ko ci seen machine. bi ñu paree ñu woo bi ñu leen ko joxee ñu ne nañ recensé sénégalais bu nekk jox ñu benn sit boo xam ne moom fa la ñuy jëlee rendez-vous site boobu. boo demee ci ñoom www point ci daayira si mooy site bi ñuy dugg pour mën a jël rendez mm-hmm. bi ñu ko jëlee li ñu recensé ñun fédération bi ànd kook sénégalais parce que am na si ñoo xam ne mënuñu woon a am accès parce que seen jàng àggul foofu da nga jël assurance di nga jël euh, contrat kër ak dugg ci site bi bi ñu ko recensé sénégalais yi fa nekk ñu toll ci 1068 sénégalais yoo xam ne amuñu këyit 1068 moment boobu ñoom ñoo amul woon mais document bi nga xam ne état jox na ko Turquie mi ngi tolloon ci mille 1444 sénégalais bi loolu amee turki yi maye nañ ba fi mu toll nii may nañ 993 sénégalais yoo xam ne ku ci nekk jot nga sa këyit ba mu un an humanitaire lañ ñu njëkk a may parce que boobu système bi il fallait que ñoom ñu xool fan lañ ñu mën a dugalee ba nga xam ne. mille 1444 sénégalais yi fa nekk yëpp ñu mën a ñibbisi di ut si waat visa di dellu si waat. ñu xool ne ñoom mën nañ ñoo dugal humanitaire parce que mënuñ ñu dugal refusé ñu dugal ñu humanitaire un an raxas nañ ñu bañ set bi ñu paree ci lañ doogo mayaat sénégalais yi deux ans bi un an yi jeexee fi mu toll ni sénégalais yi nga xam ne ñoo fa nekk 993 sénégalais jot nañ seen permis de séjour yoo xam ne deux ans la. mu des soixante quinze sénégalais yoo xam ne pour le moment ñoom ñoo bokk ci procédure mille quatre cent quarante quatre yi ñooñu ñoo ci des. ok loolu nag defe naa ne lu leer la. Mhm. man bokk naa ci ñi ko doon liggéey ak ambassade di yéeg di wàcc di dem ci police ak ñëw. lu ma ci wax nit moom lu lu luñ mën kii la. waaw soo léegi leer na boo mhm. ñibbee Turquie doo am problème ak sénégalais yu fa nekk. <laughs> leeral nga loolu léegi mun nañ xuus ci ci biir débat bi. Mhm. et bu boobaa Babacar laay waxal Babacar Turquie yi dafa mel ni bëgg nañ fi trop. lu xew feeru Falémé biñ leen di jéeñ la dafa am luñ leen luñ leen fi yàkkal lu ñu yëgul Erdogan daal. ay tànkam bëri na fi lu ngeen ko jox wala lu ngeen ko dig. jàmm ak salaam rek. ay ci bismillah merci beaucoup Pape vraiment di remercier aussi euh, en tout cas le groupe Futur Média ci invitation bi. di nuyu aussi sama ñi ma fekk ci plateau bi. Mm. vraiment on vous suit avec énormément fierté. li ngeen def ci paysage médiatique bi. donc di nuyu aussi euh, mbokku téléspectateurs yi yi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew. di féliciter aussi la pertinence des propos li président so wax. Mm. parce que quand même il faudra d'entrée qu'on le contexte. Turquie du lu bees ci Sénégal. Mm-hmm. vraiment il faut que quand même ñu rappeler contexte bi. Mm-hmm. pour expliquer que Turquie c'est un partenaire stratégique du Sénégal. la Turquie tey boo ko jàngatee euh, dafa nekk modèle de développement boo xam ne Sénégal bi nga xam ne dañuy xëcc émergence. Mm-hmm. Turquie dafa ñu war a mun a inspirer. parce que ci at yi passé la Turquie a connu un développement fulgurant. ci at yi passé. je rappelle que la Turquie fait partie du G20. c'est la 17e puissance En Europe, la Turquie, c'est la sixième puissance en Europe. Et la Turquie, c'est aujourd'hui en Europe le premier fabricant de téléviseurs, de télévision, le premier. waaw moo ci wàllu tissu euh, affaire tissu textile. Hmm. Turquie ci Europe mooy premier producteur bi. et sixième grand producteur ci wàllu réfrigérateur. Hmm. kon xam nga dëkk bu mel noonu bu fi président am ñëwee ñu ne ñëw na fi ñeent yoon loolu. succès diplomatique la muy ndam loo xam ne je voudrais à, à travers ça féliciter le travail incommensurable des diplomates sénégalais ces hommes et ces femmes dont le service à la nation éloigne très souvent de la maison et qui explique ses succès diplomatiques mhm. donc bu ñu ñëwee tey wax nga léegi nga ne buuba da doon ŋàññ ñu ne mhm. dañu jëloon réew bi yëpp jox ko français yi mhm. jox ko tubaab bi waa tey baaba waxuma loolu waxoo loolu kon kon Pape na <laughs> dañu ne dañu doon kaas fii ñu ne dañu jël suñu économie yëpp jox ko français yi waa tey bu ñu demee ba Sénégal am ouverture Turquie yi ñëw di investir chinois yi ñëw di investir indiens yi ñëw di investir mais loolu il faut le ranger dans le cadre aussi de succès diplomatique et de l'attractivité Sénégal boobu mooy bi ci jëkk beneen bi boo xoolee ci euh, ci xayma le volume des échanges yi nga xam ne ñu ngi koy def ak Turquie euh, en 2010 ñu ngi woon ci à peu près 85 millions de dollars hmm. en 2016 six ans après on a doublé le volume toll ci presque 185 millions de dollars maintenant le défi c'est on sait que balance elle est déficitaire parce que le, le volume des exportations sénégalaises vers la Turquie mm. est extrêmement faible donc mm. ci 2017 ça avoisiné aux alentours de 5 millions de dollars mm. contre 243 millions de dollars d'importation turque donc kon tey li Turquie di def ma rappelé aussi que la Turquie euh, le Sénégal fait partie des premiers pays au début des, des indépendances Turquie ubbi fi ambassade fii à Dakar c'est je pense en 1964. Mm. C'est la première ambassade turque en Afrique subsaharienne mu nekk fii. Mm. on va donc fêter de cinquante ans de relations diplomatiques avec la Turquie qui sont rythmées par vraiment des relations de fraternité donc loolu waral aussi. Euh, visite yi nga xam ne euh, ak commission mixte yi nga xam ne ñu ngi koy def nous en sommes à la quatrième commission mixte avec la Turquie mm-hmm. et nous avons enclenché des discussions des négociations politiques avec la Turquie loolu ci la peut-être yi ñëwee mm-hmm. ma bëgg am lu ma ñëw taxaw foofu mm-hmm. parce que quand même 1500 yi je voudrais sur les 54 pays en Afrique amul benn pays ci Afrique boo xam ne am na avantage boobu sénégalais am ci biir Turquie te loolu bu ngeen xoolee